téere waxtaanee naa ko parce que dama amoon réunion de coordination su suba dinaa lënkaloo dinaa woo sama gouverneur Kédougou bi pour xool ak moom effectivement yaakaar naa ne dinañ ko mën a alléger pour bàyyi leen état bi ñu def seen activité comme ubbi nañu bunt yi ak yëpp parce que toog nañu lu mot ñeenti weer yoo xam ne amuñu activité ñu ngi dem si nawet bi yaakaar nañu du yomb mais mën nañ leen gunge rek ba la nga xam ne moom lañ si doon am as tuut ñu mën si dellu mais gouvernement bi tam dinañ leen gunge man yaakaar naa dinaa dem Kédougou si ay fan yu néew pour gunge leen jàppale leen ba nga xam ne mbas mi lam leen euh, jural comme euh, kaaraange vraiment nous sommes naka lañ leen euh, programme daprès Covid parce que nous avons les ressources dañ ko valorisées valoriser après le Covid pour un développement local durable.